jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen bu baax a baax di leen wax na ñoo ngi fii ak ki nga xamante ni mooy Balla Diouf bëgg waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy combat double moteur coins Balla Diouf nuyu naa. waaw maa ngi leen di fay wasaare di nuy mbokku internet yëpp di leen nuyu di leen ziar diaspora bi fàttewuma kenn monde làmb d'une manière générale. ñu gis benn combat boo xamante ni combat bu neex la mu dox ci diggante double moteur. ak Quench naka nga gisee boobu komba waaw ni ñu ko gisee mooy combat bu neex la parce que dafa nekk ñaari xale yoo xam ne dañoo saf làmb ñaari xale yoo xam ne bu ñu bëree mu neex bu ñu feccee mu neex buñ dugg si làmb rek mu neex nekk ñaari xale yi am ginnaaw ñaari xale yoo xam ne ay mbëru gox lañu boo nee double moteur buy génn rëbës Médina ñaay cokkeer plateau kenn du des boo nee Coence boo nee Bargny ne yéen ah euh, kenn du des kon ñaari mbëru dëkk lañ te ñaari mbër lañ yoo xam ne amateur yëpp dañu gis ni ñaari mbër yi dañuy dem man dama ne sax ñaari mbër yi fi ñu toll nii ci làmb waroon nañ ko weesu. parce que boo xoolee seen parcours li ñu def tey waroon nañ bokk fi mbëri mag yi bokk mais nag comme nee nañ ku yoddu sa xët combat la boo xam ne tey ku ci comme ku ci. ku ci ku ci commentaire rek mun nga juum ku ci pronostiqué mun nga juum ndax ñaari mbër la ñoo xam ne ku nekk mun nga daan sa morom ku nekk sa ginnaaw boot na la ku nekk tamit avenir dafa nekk sa kanam ba pare nga yaakaar ci làmb te xam ne mën nañu sori ci làmb te combat boo xam ne tey dinañ ci gis bëre dinañ ci gis xeex dinañ ci gis ambiance dinañ ci gis vraiment li ci amateur yëpp doon xaar. ñu gis ki nga xamante ne mooy Quench dafa jóge ci nga xamante mooy Diène Kaïré Diène fa dem jëli Modou Anta. ñu gis ne Quench dafa mel ni ku reculer wàcc pour jël ki nga xamante ni double moteur est-ce que du risque ci moom. mais Quench boo xoolee palmarèsam chaque année mu daan koo xam ne dafa war a jóge fu mu nekk pour dem mais chaque année bu ñëwaatee année ba ci day mel ni day moom day gën a jël koo xam ne. tu vois donc carrière am bon xaw ma plan de carrière am nu mu ko nu mu ko définir mais mbër la boo xam ne nag xam ne dafa bokk ci làmb te heure bi waroon na fekk ñu naan ay Coins Sa Thiès na fekk ñu naan ay Coins euh, Moussa Ndoye seen Sène pourquoi pas parce que ñun ba ñuy yàlla ba ñuy dégg Coins ci làmb at fi mu parcours bi mu def yëpp palmarès bu mu am yëpp tey waroon na sori ci làmb def naa ni tey bu génnee ci combat bi na xoolaat toog tëggaat beneen plan de carrière boo xam ne tey moo koy permettre muy muy muy muy muy def ay performance ba pare di évoluer. ñu gis ki nga xamante ni mooy double moteur mu jugee ci ki nga xamante ni mooy fëgg la mais moom mu mel ni xaw na teg beneen pas ci kanam combat bi tey lan moo koy arrangé. waa double moteur boo xoolee dugg seem ci làmb ba mu ñëwee ba léegi mi ngi avancé parce que tey bëre bëre coins moo ko moo moo moo waral tey coow li bëri du dëgg parce que double moteur dafa yàgg di raxas autour de lui mais ba progressem dafa xaw a yéex mais nag dafa mel ni bii dafa jóg pour teg ay jéego yu gën a gaaw dem ci coins jóge ci coins dem feneen fu gën a gaaw parce que làmb toll na benn moment boo xam ne léegi. Euh, boo yéexee tuuti rek ñu raw la boo nelawee seconde rek ñu naw la kon il faut ngay ngay nekk mise à jour tout le temps. ku daanu ku ku daan dem ku daanu taxaw. non ku ku daan dem ku daanu reculer ku machinil taxaw. yaakaar nga dina xeex. Hmm? yaakaar dina am xeex. dina am xeex dina am bëre dina am xeex dina am bëre bëre bee ci ëpp mais dina am xeex. kontaan naa. jërëjëf.